moo tax effectivement am na ñu bëri jox naa leen fi ay ay audio pour que ñu wasaare ko wala boog ñu tasaare ko ah wala boog ñu léwatoo ci ah <laughs> donc je crois que loolu déjà dara la euh, ngeen xam rek ne ñu ñoo bokk Sénégal euh, làmb ji suñu yëfu ñoo ko moom man jàpp naa ne làmb mooy discipline yi gën a mobiliser ci Sénégal c'est vrai idée bi fu mu jógee déjà mooy que état bi dafa am ci lu mu nekk xeex mbas mi joxe également ay conseils ak ay conseil ne bu ñu sañoon nit ñi dem ñàkku ji ñun nag bay say say tànk ñu gëm ne xëy na bu ñu ooyee axlu làmb population pour ñëw ñàkku loolu bu benn nit rek ñëwoon sax wala 1000 ñëw wala 2000 ñun vraiment wàccoon nañu ak la ñu waroon def ndaxte war nañu accompagner ministère de la santé ci nit ñi ñàkku war également ñun accompagner suñu bopp pour que suñu làmb ubbi. comme dañ ne mbas mi moo tax ñu tëj làmb ji wala ñu arteegum làmb ji ñun war nañ def lu tax ñu ubbiwaat làmb ji moo tax ñu joxe exemple bii gëm naa ne suñuy naataangoo yi bu ñu ko defee du yàggati dara mbas mi dañuy sori ndax dina wàññeeku comme nee nañ ñàkk bi mooy mooy ñuy aar moo ñu ci dimbale ba duñu am cas grave parce que cas grave mooy indi décès yi ñu ngi jaale ñi nga xam ne vraiment mbas mi yóbbu na ak ñeneen ñi sax wax dëgg yàlla di ñaan borom vraiment mbas mi gaaw fee jóge ah, ku nekk dellu ci sagoom njëkkee non xam nga euh, lii ñëw yàlla rek xam jaam bi xamu ko bu ñu xamoon ni lay demee kon ca départ ba daañu ko def mais gëmuñu woon ne mbas mi na xëy xëy di yéeg ba tax ba ñu arrêté activité yi donc loolu wax dëgg yàlla am na ensuite ñu xam ne nekkul ne dañoo tere sport yi déedéet terewuñ ko mais dañu ne bu yeboo ñu moytu ko nañ moytu yenn yi luy dajale nit ak yooyu tey respecté les mesures barrières ca biir loolu nag vraiment de concert ñu ne nañ ajandi làmb ji ndaxte fa mu tolloon bañ koy defi tamit muy yéeg rek di yéeg sa xel dalatul ndaxte boo organisé tamit ñu ne am na ku gaañu fële waa koñ boobu duñ ñëw ñu ne mbër ma de am na waay am mbokkam bu bu wàññeeku mbër ma day ne dañoo ñaan report yooyu maanaam dafa indi yeneen gàllankoor balaa ca ñu nañ arrêté ne teg xoolaat suñu bopp jëm a dem ci li nga xam ne moom lañ digle mu wàññeeku ñu dem reprendre suñu activité monsieur le gouverneur léegi la fi jógee am na lu mu wax oui. mbër yi mag yi nga xamante ne ñu ngi leen doon séentu ci làmba ay ténor lañ ñëwuñu est-ce que CNG bi woo na mbër yi téléphone na leen tey dañoo war a ñëw donte vacciné wuñ nañ ba pare sax ñu ñëw sensibiliser ñi nga xamante ni vacciné wu waaw euh, am na mbër yu ñu woo am na ñoo xam ne tamit woo nañ seen i kilifa ñu woo leen amul benn mbër mu nekk fii di te yëgul lii. ñii posté nañu ay audio ñii aussi téléphoné nañu wax ne mun nu ma ñëw fii laa ne wala danaa ñëw lii départ la départ la yemul fii tey bu suba ku ñëw ñakku bu ne ku ñëw ñakku am na mbër yoo xam ne xëy na calcul nañ ne man su ma demee naa fekk suma adversaire bi damay baay ba mu dem man ma ñëw ay calcul la parce que gis nañ audio yi la ndax ñii aussi ñàkku nañ ba pare mais am nañu ñàkkee pare mais wane ne man aussi dinaa ñëw. donc journée bi jeexagul ñu ngi fi ñu xaaraale en attendant parce que ñeneen parce que ku ñëw da ngay ñàkku rek dem ku ñàkku dem donc euh, ça qui est normal day wone ne ñun aussi ñu ngi on en phase avec l'autorité maanaam ñu éviter rassemblement yi boo ñëwee ñàkku dem sa morom ñàkku dem lii defay nekk loo xam ne dalal xeli état te ñun nag nekkuñu fi pour indi lu xejamal dara mais dañu nekk pour dalal xeli état won ko ne ñun ay citoyen lañu ak lu làmb c'est des nobles ak lu làmb pare nañu pour accompagner état pour que évidemment ñu mën dérouler seen espoir président fu mu ne nii ñu mën a après journée tey bi ndax dinañ amalaat beneen waxtaan ak nga xam ne mooy gouverneur bi ñu mën a ubbiwaat làmb ji wala dañuy xaarandi. Euh, mais gouverneur wax na li muy wax fii léegi nee na bu ñu évaluer lii rek ñu delluwaat ci suñu compétition loolu moom amul problème maintenant mais nañ nañ nañ dëggal suñu bopp bu ñu dëggalee suñu bopp amul benn problème fi mu ne nii la balle est dans notre voilà. Euh, euh, Bombardier. xam nga ñaari journée yooyu boo ko soowee soowee leneen boo ko soowee rek yeggali saison ba te ñaari journée yooyu bu ngeen toogee seen kër dal ngeen analyser ku mel ni Balla Gaye ku mel ni Bombardier ku mel ni Siteu ku mel ni Papa Sow ñooñu d'abord bu ñuy jóg rek. c'est tout un quartier c'est tout un quartier yaa ngi dégg dankarloo baag lañ doon bañ yëpp dañ ko ciy am donc là ce n'était même pas permis waaw donc là c'était pas permis que ñu organiser ci loolu li ñu war a def mooy ñu arrêté gis ngeen open press yi eh, booy kii le champion la cité vous avez vu ces images ah loolu dalal xel da ngeen ne lii li ñu tere yëpp nag mu ngi nii ndaxte c'est un phénomène yàllaa ko may loolu non non jaar non Siteu taxul dama ne gis ngeen Siteu n'est-ce pas open press ba c'est pour dire que jour làmb ji xëy na lu ëpp loolu muy ñëw te loolu bu ñëwee fan fan foo koy dugal même bu ñu nee 5000 moom rek mun na jënd 5000 yi ñeneen ñi fu ñu jëm donc ça rek nañ am problème fii sax ndaxte fii fukk duñ dugg junne na ci biti nga ne du ngeen dugg boo ko def nga beneen problème boo xam ne mooy ëpp fuuf li nga xam nga def vraiment ñu sant champion yooyu yëpp. Siteu ñu ngi koy nuyu suñu jarbaat la di koy gërëm di ko sant vraiment ñoom Bombardier ñoom Balla Gaye ñoom Papa Sow mbëri champion Modou Lo tout le monde vraiment euh, ñoom Ama Baldé tous les champions yi fi nekk ñu nuyu Gris Bordeaux ñu ngi koy nuyu di ko sant ñu vraiment c'est des porteurs de voix yoo xam ne kenn du wax na leneen booy ñaa ñu ngi koy gërëm di ko sant posté na benn audio on na ñëpp n'est-ce pas à la vaccination te loolu ñu xaar ñoom baay booy bi oo léegi nii moom aussi posté na audio nee vraiment mu ngi ci li ñu nekk am na mbër yu bëri ñu ngi seen kër téléphone lépp lu ngeen ne ñoo ngi ci ñàkku nañ ba pare mais dañu ci accompagner ñenn ñi naan man sax naa def audio ñii naan après man naa ñu vacciné wu. parce que fi ñu jëm yéen ñii nii bu ngeen vacciné wul sax du ngeen dugg fii Sénégal parce que il faut ngeen wane seen carte bu dugg c'est ça la vérité aussi mbëri xam nañ ne ils sont conscients que aussi bu ñu vacciné wul duñ ci dem amateurs yi am na ko xam ne ñu ko xamagul mais dinañ ko xamal. te gëm naa ne tey boo xam ne suba Siteu ak Papa dañuy bëre ñu ne ko amul ku vacciné wu doo dugg fi kenn fi xej te fa lañ jëm donc c'est un processus on vient de démarrer et on va suivre et suivez avec nous et également aidez-nous à communiquer avec les populations aussi. non du tey du tey nono non antenne bi mu ngi fii heure bu nit ñëwee rek. vacciné wu ku ñëw rek vacciné wu ku ñëw vacciné wu. d'accord nombre bi ñaata ngeen ciblé nombre bi ñaata ngeen. non buñ sañoon les 17 millions de Sénégalais yëpp vacciné wu ñun amuñ limite na ñëpp vacciné wu. waaw les 5 à 6 millions de Dakar waa buñ sañoon ñoom ñëpp ñu ñëw vacciné wu. tout le monde parce que bul axlu làmb vacciné woo te ñu nekk ci kër vacciné wu ñenn ñi aussi am day day day des. on invite toute la population sénégalaise à se vacciner merci ah mais absolument absolument lii bu continuer mais bu taxul mais làmb day day reprendre ses activités day day dellu si on va reprendre n'est-ce pas très bientôt d'ailleurs monsieur le gouverneur wax na ko fii léegi donc je nañ sant yàlla te jàpp ci loolu xam ne effectivement que làmb ji euh, autorité bi arrêté woon na ko waaye léegi te mu ubbi ko allah merci